ginnaaw alert boo nga xamante ni bii ci biir semaine bii rek très lu yaatu diffusé nañ ko mu jógee suñu mbokk yi nga xam ne noo bokk liggéey bi muy waa Touba ca kanam ñu di leen sant di leen gërëm ci alerte boobu ñu xam ni fii nu ñëw tey jii ci marché bi Serigne Touba moo ko defan ngir yërmande ndax tey ñii nga xamante ni bii yàlla dogal na ak ndogal dal seen kaw ca marché Ocass ña fa nekkan ñoom la sëriñ bi xalaatan ni nan def lii indi leen fi ndax jaaruwaay du jaayuwaay loolu la sëñ waxan ñëpp dégg mu def fii loo xam ëpp na junniy cantine bëggan ñooñee ñëw fi yàlla dogal na li ci ëpp dañ koo tabax waaye ñi ko tabax itam dañ ko tabax ba pare delluwaat marché Ocass tabax yi nekk fi kenn nekku ci fu kenn nekkul nag faw dara dina fa dugg tubaab bi nañ koy wax la nature a horreur du vide boo tabaxee tabax yu day nii ba pare ay làqukaay la yoo xam ne ñi nga xam ne dañuy nëbbutu fii ñoom baax na ci ñoom moo tax ñu ñëw fi lii tam du tey lañ ko jëkk a def yàlla dogal na ñun ñi ànd ñëpp mos nañoo def délégation ñëw fi am na benn expert boo xam tam commandité woon nañ ko benn étude pour mu xalaatal nu nan lañu war a def lii ba mu def étude bi ba soumettre nu ko ñu woote conseil municipal wax leen ko waaye day xam ngeen ni Touba ni mu bindoo lépp baat la fii lu fi ab cantine ñaxe-ñaxe li bu kenn tabaxul sax fi ne boo ko laalan balaa ngay def juróomi minute téeméeri kilifa di leen la woo loolu mooy réalité dëkk bi kenn mënu koo teggi lii nga fi gis li muy niru niru loo nga xamante ni bii ay ñaxa-ñaxa la yoo nga xamante ni bi dañ ko war a bale jële ko fi boo ko doon def tey jii danga nga ci am jafe-jafe waaye ndokk nag bi ko borom dëkk bi nga xamante ni bii moom li ko ñor rek mooy doomu aadama li ko ñor mooy murit yi li ko ñor mooy nit biñ ko wane yàqu-yàqu yi nga xamante ni bii gone yi ñu ngi koy yàqu fii loolu moo tax mu yeesalaat ndigalam na ngeen ko topp ca seet ko ca nu ko war a def rek ñu ngeen waxal ma ko ma ñëw ànd koog yéen loolu moo moo nu indi tey maire Abdoulaat Ka moo waral na jiite délégation bi ndax ndigalul sëriñ bi la bi yàlla dogalee mu nekk ci leneen loo xamante ne bii sëriñ bee ko digle tam mu waxtaan ak sëñ Sidi Ahmed mii nga xamante ne bii mooy suñu kilifa di premier adjoint mu woo ma ni ma ala nan ànd man yow ak conseil yu bari mat nañu ñaar fukki conseil ñi nga xamante ni ñëw na fi ak Alaaji Njaay mi nga xamante ni bii moo yore communication ndax xibaar bi bi mu amee di ko Alaaji Njaay gisee nun ñi kilifa yi kenn ku ne dala ko yónnee nga gisal ko sa bopp biñ ko gisee tam xam na ni lu nu yàgg a naqarlu la lu Tuubaa yàq yàgg a naqarlu la ndax nii ngeen koy gis su nekk nii léegi ci kanam rek kenn ñimeetu la jaar fii jàll ca yoon la quartier bu mag moo nekk ci ginnaaw boo génnee marché Ocass fii ngay jaar pour jàll waaye génn jigéen gu fi ñimee jaar timis fi nekk nii amul benn gone bu fi ñimee jaar timis amul loolu nag day loo nga xamante ni bii waa dëkk bépp war nañ cee dugal seen loxo nu àndandoo koog ñoom ginnaaw sëriñ bi yëkkati na ci kàddoom teg ko ci loxol commune bi ñoom tam ñu waxtaan ci ak préfet préfet waxtaan ci ak sous préfet ñu waxtaan ci ak yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi sant sous-préfet mii fi teew espace bi gis nga ko mel dañ ko tabax te ñu ko tabax ñëw ñu nun lun noon seew ñu occupé mesure bi ñu jëkk a jël mooy même buñ deman ba ba pérenniser marché bi fii képp koo nga xamante ni bii ubbugoo sa cantine nekk fa di jaay booba kantin danañ ko nangu jox ko keneen lool moom mooy mesure draconienne boo nga xamante ni bii ndax loolu rek moo mën a lijjanti li bi nga xamee ne événement bi nga xam ne ñëpp déggandoo nañ ko rajo sociaux yeeg ñëpp di ko wane gannaaw bi ñu gërëmee suñu bokk yi nga xam ne tey ñoo wane loolu muy waa Touba ci kanam wane ko muy wan bu rafet ci bi ñu koy wane ñu wane ko ci ab liggéey ndax dañ fee ñëwoon jóguñu ngir ñëwoon si lii dañoo ñëwoon di fi liggéey di fi def ay làmp di ko fi monter muy lu rafet ñu gisaale fi loo xam ne nii population bi baaxut ci moom baaxut ci kon gone dëkk bi ñu wane wanewaale ko filmer ko ba ñëpp jot loolu nag bi mu amee ci la. sëriñ Sidi ak man ak suñ maire dem ci sëriñ bi ba leeral ko ci lu bëri mu wane ne war nañ faa dem jël fi ay mesures loolu moo waral tey jii ñu déplacé ànd ak conseil bi yëpp mën naa ne kenn desut ñu ñëw ngir def visite fii ci euh, ci gare bi. lu ma leen xamal ne nag c'est pas la première fois ku seetaan sax image yi da nga defee ne maire bi dafa sàggan wala dafa mës a ñëw bi ñëw na fi en temps de Tamba bi fi Tamba nekkee commissaire defoon nañ fi descente bu mel nii boobu nag xanaa dañ koo filmer wutoon pour wane ko. waaye defoon nañ fi descente xool gis yi nga xam ne moo fi nekk lépp bañ jokkoo woon ci ak commissaire ba nga xam ne li ci war lépp commissaire am ko ci doon euh, dox bi nga xamee ne nag ah lijjanti nañ ko ba nga xam ne dox nañ ca dox lu bëri li nga xam ne moo taxoon Serigne Saliou sàkkoon ko muy marchand ambulant muy bañ leen dëgër firé la waxoon ne ñoom ñëpp nañu ñëw fii ñu créé marché bi ñu ñëw ñu itam bi ñu xamee ne defoon nañ loolu dañoo jëloon ñëpp andi leen fii ñu nekk fi ay fan ginnaaw bi ñu delluwaat bi ñu delluwaatee nag le fii widdaat commissaire bi nga xam ne moo fi woon ak autorité yi doon ci veillé nag daan def semaine bu ne ak wala ñetti fan ñuy def ay rappel du bër di jàpp ak def lu ne waaye nag kenn ku ne xam na ne euh, auto mënee suura yëpp marché jël police ak yëpp dëkkal leen da ngay am ay fan rek nga def fi raaful xool lu jaaduwul nga jëli ko loolu ñu ngi doon def bi nga xamee nag dem nañ ba nga xam ne dëkk bi itam li ñu war a liggéey lépp dafa bëri yaakaar naa ne ci loolu la waral ñëpp ñëw sanc si fii loolu tamit ñi ci ñaan autorité yi ñu ko tàmbalee ci préfet ba ci sous-préfet ba ci gouverneur ba ci ministre de l'intérieur ñu yokkalaat ñu effectif bi nga xam ne moo ne fii ci biir Touba ngir sécurité bi nga xam ne nii commissaires yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi gëm waaye nag sécurité euh, effectif bi moo def kon nag ñu yokkalaat ñu ko éléments yi ba nga xam ne li ñu bëgg ci sécurité Touba dañ ko mën loolu ñu ngi koy ñaan ministre de l'intérieur kon daal ñu ngi leen di xamal ne visite bi moom visite la boo xam ne monsieur le maire ni ko sëñ Birane waxee dafa am ay tënk-tënk moo tax mënut a ñëw waaye bu yebalee sëñ Sidi Mbacke bi nga xam ne doomu dëkk bi la di doomu sëriñ bi ne ko demal nga ànd ak loolu xool ko moom yaakaar naa ne bu gisee ci moom defe naa la nettali bi gën a gaawe kon nag lépp incha allah danañ ko leeral ñi ko war a leeral bu ko defee tamit li nga xam ne jël nañ ko ci comme ay mesures ni ko suñ biraan waxee danañ ko def euh, di rafet rafetlu euh, dox nemmeeku bi visite bi daanaam bu ñu gisee marché bi nu mu délabré nu mu mel dafa rafetlu sax dëkk bi mel ne Touba donc ba na Euh, insécurité la fi indi maanaam kaaraange ñàkk kaaraange moo fi am te bu ñàkkee kaaraange amee population ñu fi dëkk ñoo ko njëkk a yëg. Euh, ñëw fii donc di nemmeeku marché bi euh, xool gis nañ nu mu bindoo nu mu saltee nu mel yëpp rafetul daal konte nag war nañu xool ban solution la mën a def pour ut kaaraange. ci mbirum kaaraange yi parce que ñun nag police ñooy liggéeyandoo. wax naa commissaire yëpp nee naa ko heure bu amee jot bu amee war na fi ñëw à chaque fois parce que police li la fi nekkee pour aar ñii la seen sécurité loolu moo tax mu jóg